ngërëm ñeel na leen ami site internet réew mi TV li gën a fës ci bopp xabaar yi nag dañu koy door rek càmbax dossier candidat yi nga xamante ne doon nañ ko amal foofa ca conseil constitutionnel niki tey jii ginnaaw nag ba ñu leen yóbbu li nga xamante moom mooy second tour kii di El Hadji Moustapha Diouf moom jàllul Rose Wardini jàll na Idrissa Seck jàll na Aliou Mamadou Dia jàll na Serigne Mboup jàll na Pape Djibril Fall daal di nay jàll Mamadou Lamine Diallo jàll na kii di Mouhamed Abdoulaye Boun Dionne moom tamit daal di jàll keneen ku jàllar nag ci yooyu les parrainage di El Hadji Malick Gakou Ali Nguy Ndiaye jàll na sëriñ Gueye Diop moom itamit jàllul kii di Souleymane jaay Ndiaye jàllul Abdoul Mbaye jàllul Aminata Touré jàllul Mamadou Diawo jàll na ba Bassirou Diomaye Faye moom ci jëmmi boppam nag daal dinay jàll moom ak kii nga xamante ne moom mooy Abdourahmane Diouf jàllul kii di Amadou Ly jàllul Thierno Alassane Sall nag daal dinay jàll mbir mu nu mel ma nga tukkee foofa ca conseil constitutionnel ginnaaw doon càmbar euh, seen dossier euh, parrainage mu mel ni rek ki nga xamante ne moom mooy Bassirou Diomaye Faye euh, jàll bi nga xamante ne daal dina koy jàll ci boobule parrainage rek commencé na alimenté bu baax réseaux sociaux yi ginnaaw bu ñu njortoon rek moom mooy Ousmane Sonko du ñàkk dinañ ci xusandiwaat ci yeneen i jotaay xabaar jërë jëf ci teewlu bi bu leen fàttee abonné bës cloche notification ngir amaa yeneen